bac général 2018 comme niñ ko amele fépp ci Sénégal département bu Mbacké desul ginnaaw fi nga xam ne mooy cour privé Fallou Galass doxantu nañ leen fi ginnaaw bi nga xam ne candidat yi def nañ seen matière dominante bu njëkk bi 8 heures jotee ñenn si candidat yu ñu taseel ak ay kanam yu bell waaye timit lépp ñu teg ko ci loxoy borom bi xamlal nañu aussi ne examen yi moom amul dara loo xam ne ñu ngi koy tiit ndax ñi ngi respecté li nga xam ne mooy norme yi ak règlement yi nga xam moom lañu ñu tëral. man la Serigne Saliou Samb dëkk Touba Kër Niang di candidat baccalauréat euh, série l waaw ñëw. waaw épreuve bi de wax dëgg yàlla mi ngi commencé ci filo ba ak tey anglais bi. waaye lépp rek dañ koy teg ci loxo suñu borom quoi waaw wax dëgg yàlla ñoo ngi def li ñu xam waa di xaar suñu borom nag waaw. wax dëgg yàlla ñun moom li ñu jàng wax dëgg yàlla moom lañ koy moom lañ gis. wax dëgg yàlla filo bi si si si li ñu jàng moom lañ gis tey tamit anglais bi li ñu jàng tamit aussi li ñuy jox tamit gis nañ ko. ndax respecté ngeen norme yi muy lu jëm si li leen interdit te defoo leen ko comme portable téléphone portable. waaw loolu nag vraiment ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw am nañu ñu ciy bàyyi xel am na ñoo xam tamit ñu ngi ñëw mais tamit utiliser ko ci biir classe bi ko dañ koo yor nii rek pour di ci xool yooyu après en dehors de l'école mm-hmm. waaw mais utiliser ñu ko ci plein cours. koo signaler wala. vraiment gis guma fi lan loo xamante ne si parce que norme yi nga xam ne moom lañ teg nañ ko depuis avant ñuy ñëw ci euh, jour bi kon donc kenn ku ne mi ngi ci kenn ku ne mi ngi ci bàyyi xel quoi vraiment ñu ci bàyyi xel bu baax a baax wax dëgg

Il y a 389 candidats. Parmi les 389 candidats, celle ce matin, on a eu 17 absents, 7 garçons, 10 euh, filles. Bon, il épreuve bac général depuis anticipé, ça fait bientôt peut-être deux semaines. Et il y le plus grand morceau, la langue vivante, que stage suis doon travaillé pendant trois jours après nous les matières secondaires bon pour le moment il y a une bonne perturbation amul perturbation bon respecté nañ ils sont venus à l'heure bon y a la sécurité qui est devant le portail Il y a les surveillants sont venus. nañ président jury bi avec les professeurs superviseurs donc daal on touche du bois vraiment macha allah lépp jaaw na probablement ci yoon amul benn problème. ñu doxantu ba fi nga xam ne mooy lycée bu Mbacké bokk ci centre yi gën a mag fii ci département bu Mbacké ki nga xam ne moo di proviseur bi lim ñu xamal mooy lépp tamit mi ngi ci dans les normes examen yi daal ñi ngi koy amal ci ay conditions yu mucc ayib. duñu fàtte aussi waa conseil communal de la jeunes ñoom ñi nga xam ne dañoo rendre monnaie ñi nga xam ne ñoo di candidat yi ba tax na bi 13h40 jotee ñi ngi tàmbalee indi li nga xam ne ñoo di berne yi ngir jàppale ko candidat yi dëkk fi sori tey yendu ci biir centre yi ngir kat biir bu ca dara nekkul du taxaw ba tax na aussi ñi ngi leen di ñaanal bon sens. Euh, Cheikh la ak euh, équipe bi. Nous avons en charge euh, l'école privée Falu Galas Nous avons 6 centre six centres Nous nga ici. pour représenter le conseil communal de la jeunesse bi jël initiative euh, travailler avec euh, ñi nga avons un si nouveau ñi bachelier Nous xam nañ examen dafa sensible Et soutenir moralement financièrement psychologiquement donc raison pour laquelle ñun ñu jugé nécessaire ñu conjuguer suñuy effort dajale li ñu am ak li ñu amul euh, fexe sàkku tamit euh, l'aide des autorités am ñu ci répondre favorablement ba ñu mën a ñëw fii vraiment jàppale suñu frère cadet ngir euh, li ñuy sàkku muy bac bi yàlla defal leen ko. Wa benn yëpp comme ni nga ko waxee rek biir bu amul dara du taxaw sàkku bu amul dara du taxaw té xam nañ ne réflexion bokk na ci li gëna gaaw ci euh, xiflo nit ci perte ko euh, conscience am et comme il faut savoir raison garder aussi il faudrait au moins que ñu xol naka lañuy def ba jàppale candidat yi ba bu ñu ñëwee fii sagam kenn ku ci ne fi ngay ñibi day sori le temps ngay dem di ñëwaat da lay fatigué fatigue bobu pour éviter ko japp na ne la meilleure façon d'agir c'est au moins ñu fexé ba indil leen lo xamné si manam dañ koy am sur place man a mën añ reprendre encore activité yi euh yalla dimbalé leen dal ba la ñu bëgg ñu mën ko am facilement Serigne May Sek président conseil communal de la jeunesse bu Mbacké. waaw berne yi mom bi moy 3e année bi ah ñu koy def parce que depuis que ñu nek ci conseil communal bi ñu fal ñu fa aussi dañu amone idée que né rendre la monnaie quoi lo xamné suñu am suñu ben mag bu ko fi daan def autant député mom mu nekkoon député don ko def muy Thierno Sy donc té ñun temps yi daan jàng daanañ gis mu koy def aussi ñun yàlla suturaal ñu ba ñu am ci lu ñu nekk ñu ne aussi nañ rendre la monnaie loolu moom moo ñu ci jugal idée boobu jàppale xale yi ci nga xamante ni ñu si bari danañ mën a añee sur place mën a continuer waat seen étude non six centres yëpp nag la six centres yi nekk ci commune bi yëpp lañ jox ñaañ waa administration bi que muy que muy les élèves fond bi ñun si suñu bopp parce que ñun participation citoyenne la gëm ñun si suñu bopp ñooy participer ku nekk génne sa poste def leneen lii autorités yi nga xamante ni xam nañ li ñu def mooy lan ñoom ñu solliciter leen ñoom ñu jàpp ci donc mais du ñëpp mais am nañu ci jàpp donc pour que affaire bi réussir daal. asalaamaaleykum gisee épreuve yi. waaw épreuve yi sant yàlla rek sant yàlla l'essentiel mooy neuf mois yi jàng nañ ko def nañ li ñu war yëpp jox nañu suñu suñuy sujet traité nañ jox leen bàyyi li ci des yàlla. yan benn perturbation nag moom wax dëgg fa yàlla amu fi sant nañ bu baax waaw jox nañu sujet yi amul erreur tamit def nañ. yëpp daal ci discipline ak ci ak salaam stress bi tamit xam nga du ci mën a ñàkk mais tuuti la woon rek tuuti mais saa yee daal.